ana depp noo koy sarte ci màng ci ci màggal gi war koo jaay a ah, ndox mi fees dell amoo fenn foo jaar gisoo kenn gisuñu maire gisuñu conseiller gisuñu kenn ñun daal wax dëgg fa yàlla jaaxle dong lañ def jaaxle dong lañ def kàddu yi ngeen di yëkkati yan kàddu lay doon yan kàddu nit ñi parce que nit ñoo ko faral te dafa waxoon ne 6 mois lay defar dëkk bi ñun ñëpp ñaan ak moom di ko déglu waxuma la 6 mois waaye léegi mu mat 200 daara gisuñu ko fi lu mu fi def Abdou Mbacke Ndaw évacué woon na ndox mi ba muy dem su tawee une minute ndox mi dem kii nag gis nga ndox maa ngi nii wert yéen a gisal seen bopp ndox wert moom dara warul ko lu may yàgg yàgg donc mi ngi nii suñ maa ngi sin yaa ngi fee dal lañ ci defoon ci maa ngi ba tey jaayuñu ko amuñu fenn fu ñu jaar mën koo jaay ndox maa ngi ni yéen a gisal seen bopp mi ngi nii ñëpp feebar nañ yooyu matt nañ ba ñu bëgg rek ñun waa ba daal wax dëgg yàlla daa mel dëkk duñ ci réew mi waaw buñu fu ñu jëm nag jëm fa gisuñu kenn ku ñu buubalam mbalit wala ku ñu buubalam ndox wala ku ñu kaasal dara daara amuñu ko hôpital baa nga fees delakam ndox maire maire baa nga fees delakam ndox ñun ñii gis nga ñun ñii daara kanaal kanaal ba fa Ablaye Wade defoon nag ñun moo nu may jàmm waaye bu doon loolu ba tey taxu nañ yàlla xam na ko barki dem bi ma taw ci suba ma dem ca kanaal ba taxaw damaa daw defoon ndox mi doon ma yóbbaale waaw te kanaal bi ak fii même buñ ko évacué woon mu jaar ci tëli ba képp même pas 200 mètres ndox mi dem waaw waaye dafa mel ni xamuñu laaju ñu xam nit nag bu xamul laajul du xam fu muy jaar. fii ma taxaw nii ñun bi ñuy xale lan gëj a gis fi ay ndox yu taataa yu mel nii ndox yu vert yu mel nii dëkk bi ñi ko yor amuñu soxla si waa dëkk bi lu mu dee dee dee kin remplacé du màggal mu Touba Moussaana jo da nga ko gis muy circuler si biir dëkk bi ak otoom di xool fu fu fu taa ak fu taawut fu nit ñi mën a jaar ba jàll dem lii ñun ñii nii nii lii ñun ñu dëkk si secteur bii am nañ lu ñu naqari am nañ lu ñu am nañ lañ lu ñu naqari ndax dëkk bi secteur bii bii nii musta am ay taataa yu mel nii ñu ñuy seetaan ndox mi di naan ndox mi di nab di gën di mandi nab bi di gën di mandi ba léegi mi ngi nee si bunt marché bi egg na si marché bi te musta egg fee daa nga romb ay jël suuf ñu koy jéem a rembale di ko yóbbu si canal bële du canal bële bouché ñu jéem a xool lan moo koy débouché ndax ñun suñ suñu dañuy fay ay impôt du impôt jotee ñu koy fayeeku dañuy tëj place yi ñëpp ñuy jaay ñëpp dañuy tëj seen place ku si fayu dañ lay tëj xaalis boobu ñuy fay si dëkk bi lan bëgg nga xam fu muy dugg ñu ñuy wax naan ay budget maire Mbàkke mënut a jël oto Malick sax mënut a oto Malick mais ku fi jóge tabax na fi ay poste de santé dafa jël taxaw ay poste de santé mbali mi doon nañ ko jël ndox mi doon nañ ko manque ñun xamuñu ne xaalis boobu fan la ko doon jëlee ñun xamuñu si poosam la ko doon jëlee wala déet mais budget bi mu nekkoon doon na si def loolu nit ñi di ko teg seen bët ndox mi feebar sama yaay ngi ne démb hôpital la yendu sama yaay hôpital la démb sama bi jógee Dakar moo njëkk feebar si suba gi yaay hôpital la yendu démb mi ngi nee si lal yi doo demee loo loo jënd loo liggéey si ay ordonnance lay nekk nit ñee ngi feebar yooyee ngi matt nit ñi secteur bii nit ñi sonn nan te Mbàkke gépp la nag foo romb gis Mbàkke gépp nii la mel amuñu soxla si dëkk bi gisoo leen si dëkk bi sax laa wax ay benn conseil municipal si dëkk bi ñi ko war a wax ñi mu fi bàyyeeg ñi ñi fi moom mi fi toog ñëpp duñ gis dara mu mel ni mu mel ni fi mu toll nii euh, moom Mbàkke la dëkk mu mel ni fi toll nii APR la nekk ñu tànn ki nga xam moom moo di Amadou Ba mu war a doon candidat yéen waa Mbàkke ngeen gisee boobu la ñuy sanctionné suñu yoon nekku ci ñoom ñëpp la ñuy ku du ñu indi woon mala du ñu indi loon ku jóge sa yàlla doon APR duñu excès dañ koy sanctionné ku jóge sa yàlla wàcc si su suuf du ñu ko indi mu doon carte membre APR dañ koy sanctionné noonu leen def ndax respecté ñu bi ñuy def seen campagne yi promesse yi ñu defaloon ay 3 mois la ñu joxoon délai ay 6 mois heure bi ñu taxaw di ñuy wax naan barki dem bi muy def conférence de presse joxuñu benn décret joxuñu benn budget ministère ñu benn budget buñ voté ensemble buñ mën a am dara boo déggul Mbàkke nangam ak nangam ñu ngi def ay promesse mel ne si campagne lañ nekk ba léegi. yan kàddu ngay wax maire bii di Gallo Ba. nañu dimbali ngir yàlla mu defar dëkk bi moom la nekk si ay loxoom keroog mi ngi wax naan ñu ay 75 millions yi ñu fay waa ONAS gisuñ koog nangam ak nangam loolu taxatut ñuy wax ki jàll jàll na ñi jàll jàll na moom moo yor dëkk bi fi mu toll nii moom la am lu ñuy wax ak moom suñu yoon nekku si ki ki jàll jàll na moom galo ba moom na defar dëkk bi jóg wàcc si dëkk bi kenn tegul tànkam di ko gis si dëkk bi fenn si dëkk bi kenn gisu ko. Ah, mu mel ni def euh, toppatoo na stade ba mu pare bi loolu tamit yaakaar naa yéen kàddu nga doo dee pavé da wax si ndox mi mu jóge fi ba noppi da am def infrastructure nekk si tali ba tali jóg mais mbedd mu taa mel nii doo ko bëggoon a pavé tey doo pavé day décoller après xanaa ñun génnuñu Sénégal mel na ay dof lay waxal mel na ñun dañoo nekk biir daa am si norme yu jaar li ñuy wax di ñu wax ay pavé léegi ñu wàcce fee du fekkee yeneen dina ñëwaat na ñëwaat ñun sa dëkk bi su ñu ko defaroon yàlla na ko yàlla dimbali si ak ayam mu defar dëkk ba mel na panaal mais daa awagut si yoonu defar ko ba mel na panaal yàlla na ko si yàlla dimbali du fekkee am na yéen a jëta bëgg ko ah, juróol nañu tolof tolof yi metti ndaxte fi mu nii bu ñu dem marché dañuy xuus dañuy wiir ji fu ne la jaar marché bi tamit waxi noppi marché bi da ngay xuus waaw suñ doom yi nekk ci ndox yi ah war waraan yi di leen dugg seen tànk yi sonn nañ torop wax fa dëgg yàlla am DG nag moom bëgg nañ nag moom mu defaral ñu Mbàkke ba mel ne panaal waaw nañu ko defaral daal lool daal fi mu toll nii moom nañ koy ñaan waaw te ñi nga xamante ni nii nag ñi ngi liggéeyee ci mairie bi ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum bale tëli bi boobu ba tey juróom-ñetti weer ci ci boobu ba tey fay ñu leen seen xaalis nañ leen jàppale ñu fay leen seen xaalis waaw fayuñu leen. sama borom kër ci la nekk. ah juróom ñetti weer. ñu amee leen seen xaalis fayuñu leen ko ci bale tali bi tabaski gi dikk na fayuñu leen màggal Tuuba dikk na fayuñu leen. waaw nit bu lay liggéeyal ba fin de mois jot da nga koo war a fay xaalisam mooy yoon ñoom ñi ngi noonu sa fin de mois ñi ngi jot seen salaire dañ leen fay seen xaalis ndax kenn ku ne sa kër nga am waaw ñoom nag bu campagne dikkee kër gu ne la ñu dugg. ñu jàppale leen ah ñu bàyyi suñu njaboot topp leen waaye dañoo war a geesu te jéem ñoo jàppale. waaw mel ni tànn nañ candidat bu bees moo di Amadou Ba farak maire bu Mbacke di Galo Ba. Mhm. jàppale ko wala boo moytuwul lii bu leen ko fajalul da ngeen ah, ñun de lii moom ku ñu ko fajalul moom fi lañ lay bàyyi ndax ñun Mbacke lañ am. nekkoon amoon na yéene liggéey réew mi parce que am na lu mu fi def ñun ñii bi mu fi nekk am na lu am na lu ñu defaloon fii ndox mi musul taw ba taa taxaw fi sama place ngi nii ay borom kër yu bari ñoom ñoo fi daan seeni doole mbaar yee gis ne mooy suñu place bu tawee kenn du dugg kenn du génn ñun ci biir ndox mi lañuy taxaw di liggéey loolu nag ñaaw na trop ci ñu ne Mbàkke am na meer ñun buñ ñu Mbàkke am na meer ñun duñ ko gëm parce que ñun ah, jàppuñ ne Mbàkke am na maire ndax ñun jàppoon nañ ne buñ amee suñ naqar war nañ koo mën a jooytu ci maire waaye nag lii suñu yaakaar dafa tas ci garaba ndax jàpp ya depuis ñëwee fii nii gis fii ni mel moom bu jële réew mi war naa gëstuwaa fii waaye sonn nañ trop sonn nañ trop fu ne wax nañ ko fa nag waaye jàppoon nañ ne buñ jooytoo bu bu lii ñëwee dana ñëw fii bokk koog ñun waaye naqar bi ñun kese ñoo ko bokk gisuñ benn maire boo xam ne wolu nañ te buñ sañoon nag dañu ci wol waaye danaa la xamal ne fii ma ne yàlla mii ma tim xam na ni am naa fi juróom fukki at génnuma Mbàkke Bawol gii waaye lii ma gis nii mosuma ko gis ci Mbàkke diir Amadou Ka ba nuy ba ba ba nuy ba ba jóg ba ba Abdou Mbacke ndaw mi jóg ñëw ba dem mosuma ko gis lii ci Gallo Ba laa ko ma ci yëkk gisee ab dogal nag bu mel ni fu nekk ci barab lay jaaree. man Gallo dama ko sant sant koo xam ne man maa ñaanoon bi nga xam ne di ay doomu aadama ñoo fi toogoon di ma seere ñu ngi nii toog di di dégg ci li may wax ñu ne ma Gallo mi mënta gañ mënta gañ Abdou Mbacke ndaw man li ma Gallo de bu moomul Mbacke atuma den ma xaj ci yoonu Serigne Touba dinaa dellu Saare laa ma gëm a dëkkoon waaye dinañ moom ak euh, dëkk bi dina ko moom atu mbaa moom kay du gën dëkk bi kon damaa ragal ne buñ demee ba sunu borom ba lii nag xamewuma ko gisewuma ko nii ma ragal ne bu amee dëkk bi lu defar dëkk bi rek lay lay cële cool cële taxaw wax ne ci Gallo Ba ngi ànd ak yaakaar jooju maa ngi ànd yaakaar jooju ji xam nga la ci ne njuum te du ñàkk ndax léeg nit doomu aadama dina dina nga bëgg euh, euh, tumub gumba di ko wamat ba daanaka ba daanaka ci kàmb loolu day am ci dëkk am cim réew. lan nga ñuy xamal ñun ndawi Mbàkke ñu bëri di wax ne Galaba bi mu fi dikk ak léegi li fi def amul benn maire bu fi mas a def yow fekk nga lu bëri suñu bàyyi ñu lay ñaanal fan nga gudd ndax loolu mën nañu cee gindi. lu mu fi def loo xam ne kenn mosu ko bee def lii de laa gis. lan si ndox mi. ndox mi. ndox mi ah. laa fi gis mu def loo xam ne kenn mosu ko fee def waaye bu ñu doon wax meeru Mbàkke mu def lu kenn mës a def mel ni Ibegay la doon. Ibegay waaw. bi de amu ci lu may contesté parce que APR. ak benn Bokk Yaakaar foog ñoom am ci li ma gis nag ci candidat ci ci choix bi man gisuma ku ku ku gën a valable Amadou Ba ndax euh, parcours bi mu jaar yépp jaar na fa ci liggéey fa liggéey bu rafet te kenn joxuñu ko baaraam am na yar am na xam-xam te jubaw naa nit ñi te Sénégalais li mu gën a soxla fi mu ne mooy président de la boo xam ne day ñëw ubbi ubbeeku jubaw ñëpp. té man yaakaar naa ci Amadou bané bu ñëwé dana doxalé lool parce que dafa am luñ dund lo xamné ne bëggatuñ ko dundat contentieux yi fi jaar ak xulo ye xeex yi dañ ko bëgg tek ci suuf dund ci jamm mais yaakaar nañ né Amadou Ba man na ci def dara ndax Mbàkke boo gisee euh, affaire mënu fé gàññe lu bari wala wu fi dara moy dafay defu dara nak bu ñu waxante dëgg parce que mbacké amul usine amul ben barabu kay tay xale yi ñiy jàng fii ci diplôme yi nit ñi war a am ci àdduna bi wala yu am war ko am ci réew mi gone Mbàkke yi am nañ ko waaye doo ci gis kenn ku ci yor poste responsabilité kenn rek lañ ci gis mu yor poste responsabilité muy honorable monsieur le ministre Gallo Ba ñu jaar ci passage bi di ko di ko gërëm di ko félicité. mais li ma la bëgg a xamal ci Sénégal fi mu ne wala Mbàkke wala Touba bu ñu bëggee dindi inondation yi nii foog ñu am ay canalisation canalisation yi nag. du tiwoy rek yi ñuy canaliser rek moo mën a yóbbu ndox mi ab dëkk bu màggee da ngay ànd ak moom màgg gis nga diggante Touba ak Mbacké foog mu am ay conduire boo demee Dakar conduire dëkk yu tëli ba danga fa romb gis conduire yi ñu ngi leen kaste ci bi suuf tali bi jaar ci koom nit ñi duñ ko gis waaye ñun ñu yàgg Dakar nga xam def nañ fa 45 am na yoo xam ne gis nañ bi ñu koy defar wala fekkee nañ ko wala gis nañ ko Mbacké ak ko ko bëgg a defar ndox mi jaar ci da ngay wut ay conduire yu mag def canalisation mu weer si ci conduire yi conduire yi ndox mi génne ko dëkk bi waaye tuyau yi ñuy def naan ay ay branchement so yi génne ndox mi parce que Mbàkke day day place ndox ak Touba. Hmm. waaw xëy xëy na xëy na euh, état ni muy doxee moo mooy moo ak kii moo yeex waaye Gallo am na ambition pour dëkk bi bëgg na defar dëkk bi ndax Gallo Mbàkke rek la am Mbàkke rek la bëgg man de wax de yàlla. Euh, du du dama koy wax pour mu dégg ko wala mu defal ma dara waaye damaa gis ne moom bëgg na Mbacke ndax gone yi li ma gën a li ma gën li ma gën a neex ci moom mooy Mbacke li ma ciy wax nee naa la am nay cadre yu jeex waaye gone yi am na ci ñoo xam ne ñii boo tase ñoom ci Ndakaaru sax boo nee Mbacke la ngi dëkk daanaka duñ la wuyu moom rek moo ci nekk cadre boo xam ne dafa ñëw rek dugg ci état rek commencé fab loxoom teg ko ci Mbacke ñëw ci Mbacke di leen di di di di bëgg Mbacke jóg ci loolu la mas di dox. waaw man nag li may wax waxuma ko pour neexal ko mais ni ma gis ne mi ngi koy def bu ko ay moromam yi ko jiitoon def wala ñi ànd moom dimbale ko ci di ko def waaye fii da ngay jël lenn di ko def ñoom ñi nga a dimbale ñu taxaw ci àll ba rek naan xamoon nañ lii waaye mënu lii mënu lii dëkk bu koy defal ñi bokk ci dëkk ba ak ñi seetaanu ci dëkk ba ñëpp dañ ci soobandoo seen loxo di pour ba mën a baax waaye duñ seetaan kenn rek naan moom de dafa diggoon lii def ko wala dafa diggoon lii def ko man loolu la gis